sur Vibe Radio et il est 20h. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Tower Show, the best of hip-hop and R&B, old school, no school, as usual, as promised, your Boy, Ghost Lennon, a.k.a. Tower Il y a un frère qui est dans le bâtiment ce soir. Salam alaikum. Alaikum salam. Dilajar, dilajar, walopok. Eh, Où up, Bandi? Est-ce que gars est parrain? Eh, gars, xolal lek man xawma. Lo gis I hope everybody's uh, ready. Yeah. yeah. Okay, I'm water. Millie, Millie, Millie, yeah. Okay alma mili bi fils maa ngi mel ni mili terre dam leen nar a jàpp rek suul si suf ter fils no man ci air bi mäi maay may hélicoptère booy nii boy demee booy do fils doo fi mel ni may cratère dam la nar a jàpp volcan la sa kaw day ball fils yaa ko tey mais dam lay pam pam pam lii nii ay yi raba gumo fils no maa ngi toj tempa nii lay demee booy doo ci tus yo nii si si tempa No no boy it's your boy it's your boy it's your papa my nigga nii lay demee boy nee naa la I'm a dirty nigga. Yeah. From ground, you reptile music, what's up? Boy, ni like them, eh, boy, man, do my rap, yo nigga, ngay so. Man, hey killer boy, man, hey killer boy, boy, tay dinga boy. Tay sa tanke, eh, yay muje la jack, nak fis do mum do doy. No boy, dara do doy, no fis boy, dara do doy. Fis alma guy, nyo me eh, khole, axe ne botu joy. Man, do mum chi dara, sengandi, bot men le loy. Bro, do chi tools, boy, fido am dara, fis loy joche, loy joche. Wak mo loy joche, boy, wak mo loy joche. Man, la hek il boy fils ne naa la du jafe No, dam koy teg rek ngay gis fils ni lay demee man 10 yo zéro no fils man 10 yo jiit yo aéro fuck you nigga is your boy hek il uh uh-huh. fils man koy teg boy di lo jàpp di la pampa uh. Yo dam lo nara chop mel ni brochette kanka yeah fils man, ngi mel ni kanka yeah it's your motherfucking boiler. Fizz ja kot me gaan ge niet day boy. Non office, not hey day tango jerk is hey day ball. Hey killer boy, ni lay da me rim yangi di dollar. Boy monkey ke gen en gis, ye monkey ke gen en ge gis. Hey boy me hey de breven de ben nu bis. Matal show rek. Benen. Benen, benen. Beren. Yaram bagi tangan ang kenang. Yaram bagi tangan ang kenang. Ya yaram bagi tangan ang kenang. Yaram bagi tangan ang kenang. Dam nara jab gaya rek pak. Eh dam la nar bet ni mak. Tay dinga touch fist, dam lai mak. Otom bali la no so dus. Boy yak tay boy dam la nara sank. Is your boy boy da kai check fis. Ham ganim boy do manak yo nyo fis punk. Fis punk kom punk. Mafi tek tank. Fis dam la nara sank. Ay, face my tech tank, my nigga, yeah, yeah, dom naar de sank. Is je boy, nigga, take me, gis bij yeah, me. Boy, nila deme, boy, no more yene. Sa hola i bon, sa hola i sisu. Boy, of death, that a boy, my evil. My evil, wow, Ibrahim Khalil. Gaan alle rond weer boppen je. Boy, nila i deme, boy, face aan een boy, dekkel en koppen je. Na je luppen laag, je nel sarag, je nuppel laag, naar de jog. Is je boy, the boy, ik kan genoeg knock jou, ik kan could say, eh. Face my ngichi ko, yang ngichi soup. I'm Hey, bizmange get you soof, my nigga. Hey, eh, Hey. Eh risico, janketjes of nigger. Fysiako te boy met te gaan geniet of wie egger. No, no, maf nigger, discotheek. No, no, vies nou nieuw zie discotheek. Boy, man, ik wie vibe radio. Boy, ja, te boy, vies hem lang naar de verrel. Ai, ajo, ai, bajo, wat dan is ai, Boy, is je boy, no boy, big up, samen ado. What's up, young, my, I'm Yeah, young, my, I'm Yeah, man, get glitter, yeah, you wala No, you wanna Boy, man, get look lu look away. Peace, yeah, boy. No, hoy. Ere eh, man, tam dama, hoy. Chill rap, dama, kay, tek gay, gis, boy, gay, gis, do, yeah, man, di, oh, Yeah, yeah, fish, nanga touch, nanga touch, nanga touch. No, fish, yeah, okay, boy, Me ram, get niet, hey, boy, man, dama, gaat No, fish, dovi, gaat, fish, dovi, gaat, ma nigga. Yeah, nach is a boy, more, fi, neck, man, nigga. Yeah, fish, boo, yeah, boy, fi egg, ma nigga. Yeah. vies. Jij gaan met Dovi, I'm toes. It's your boy, the boy. Yeah, it's your boy, the boy. It's your boy, die got en geen kies. Look, look, come boy. Vies is your boy, the boy. Yeah, it's your boy, the boy. It's your boy, die got en geen kies. This look, come boy. Yeah, it's your boy, the boy. Yeah, vibe and ride your boy. It's your boy, die got en geen kies. Why look, come boy. Yeah, it's your boy, the huh? Your boy, the Yeah, Akio. What's up? Bonne son wil gëna neex ci mixtape bi? Euh eh, <laughs> Mo xool mo xool. Eh, dama am benn deux choix nag entre Mpale ak Yigo quoi. ah waaw léegi waaw léegi loolu dafa leer. ñu dem <laughs> jox ko dafa leer quoi ayca ñu dem loolu dafa <laughs> ñu dem. yeah. leer na

the for life, ride Eh. ma dafa xëy gis may def rap mu ne ma doom kaay mën nga def li ngay def waaye bu langu doon gaay ñoo la dàq jàng waaye yaa leen dàq jàll ñoom bu ñu dóoree bal mu jóg daa fekk dañ ko jàng di nga bëri noonu am ñu lay sos ay feni neen di nga maat naan xaaral baak fekk la ci teen melal ni ñoom te doo ñoom ñoom ni yow lañ bëgg a mel amoo le bralon waaye buñ ko gis de bu jamel bu sita doox yow kase boo gisul gaynde gett xam am na waaye mosoo dégg gëytu gaynde li ne ci man ñaata yoon nga ma gis sewal te xamoo li ma mën ay jëlul au ngi tudd Hekil arondu ya shiri rabatie homie ya kill sankan jalo la tari nga ne di jàng si at yow li ngay woowee tatari moo ci man yoon gu ñu xali ma laajte nu mu demee ni ko dafa leer xanaa gisoo xanaa déggoo ni ko dafa leer uh. yi ko dafa leer ah yi ko dafa leer dafa leer waaw dafa leer bul ma laajte nu mu demee yi ko dafa leer qui se la dégo, le voler. Le Le dafa leer vibe radio dafa leer wax bu amatoo fa jëm na nga taxaw diggi yoon bi boo delloo fi nga jóge yéex a yegg fañ la yoon di <laughs> njëkkante ma waaye foog ma gaaw a egg jël ci dund bi lekk bëgg ma suur man dama war a regg ma ñaati leen nga ma laaj ci lu muy rabay alléluia tey sa doom Ibrahima loolu tax ñu yolleluya loolu du tax ma bàyyi dafay tax ma gën a yokku joom xeeb dool yi xam ne dara xëyul sotti kon yokku ñaanu moo sas kenn gëmuma lii di hasard yàlla rek lay xaar donte temps yi daal dama bëggee sa song

yigo dafa leer kay yëful ma laajte nu mu demee baay dafa leer xanaa gisoo xanaa déggoo waaw dafa leer dafa leer ya baay dafa leer dafa leer dafa leer loolu loolu leer na waaw ah, loolu laa gis yow ak ah, noo def waaw <laughs> ah, cool kay Mister Tall nu mu demee yow waaw nice am jàmm waaw alhamdulilah naka bës bi nice nice nice ma bëggoon xam rek naka nga def waaw man cool cool cool

Je vas pas de ce monde, allez bye Petit faut pas jouer au plus con Tu vas voir ma grossièreté en détail Rage de vaincre d'un Jedi Oui la concurrence est le taille Tu as rien gagner Y'a gagnant que tant que tu vas graille Il parle mais en vrai y'a pas débat Depuis combien d'années mais ça paie pas Hugo toujours pour rien flow pour rien Dès que je te vois je crie et eh, Allah Rinana avo gebe Idu kerha intihari nawari kita Intanteri gana andebe Gagnant qui a de l'anguille micro kev On peut sénégalais trop africain voilà pourquoi j'ai un côté schizo. Jamais tendu la main, moi-même à Ken. De toute façon, ils vont jamais te donner de ce qu'ils ont. À vrai dire, ils ont rien, ouais, disons qu'ils ont juste réussi à Ken les plus mignons. Parle pas de rap et non, t'as pas une belle plume. Depuis longtemps, j'ai dit plume, t'es un pigeon. Faut vers mettre ta game, non, tu parles règle, on te connaît même pas. Galsen, c'est le minimum. y'a la mardi, s'il faut sortir maintenant. On dirait des animaux, ils ont tous des crimes et personne le de rap. Y'a la main de me pas, dans le buzz, <laughs> def ñu teew pays nanga def rabore ya akim yow doon laajte man maa ngi nii maa ngi nii maa ngi ko tàngal ba léegi nii nanga def nanga def ici on dit nanga def nanga def nanga def mais yi go dis nanga def bienvenue teew pays yaa di rabore ya akim yaa ma doon laajte man maa ngi nii maa ngi nii maa ngi ko tàngal ba léegi nii nanga def nanga def ici on dit nanga def nanga def nanga def Mais il Ils m'ont dans la tête comme mon cerveau. Ils m'ont dans la tête comme mon cerveau. <laughs> Killers in the building. What's up? ñu de ñu dul déglu Power man ma mën a le tout. après dugub bi wala boog. My single be. ay jeune Power. yeah yeah low. music. da nga doof te xamee nga sa moromu ma man doofu ma nag maa di docteur buy faj booy yu fogoon ne fii pour nga tooj ku la ëpp doole rek ngay sóor ramasseur de bal nga booy deux joueurs amoo fi place ni weeru deux heures noo def doo xel ñaar ndax dama xar gem mel mel ni kuy jëlandoo deux heures booy soxla ma njëkkante man sama làmmiñ sax nee naa la mënuma jiitu fii kan laa koy ñàkkatel ñëpp laay bengal doo ci dal ni ku jinne jiitu talent nga may ñor di nee naa la man sama bos ba léegi gisoo ko dam ka caché luy ndey ma juddoo ba tey ni nga bâché wax ak yow pop yi génn la sa rap yi imparfait xewi na dem ko dépassé version bu bees tax laa la nar a téléchargé animateur bu ma jàllalewul damay tëmbir bi rek waaye kenn du ma tëye boo buggee ku la dàqa ji ndax li nga yor teyel alimenté dugub bu laaye Take it. It's a change. ba noppi kon nag ma jox bi ndax la nar a wàcce bul ma laaj ndax maa ngi dóor léegi maître la ndax ngi nana ma day raboy xaaral ma ree kaay fi ma jàngal la ndax da nga pour yow da nga aay ci la nga waaye ay cigare rek a ma tàng te ne li gan sa nopp sa xol di mais din reptile te marchandise bi léegi fépp lañ Dakar ci but bi sans permis waaye policier bi sax dama naan ok ku soble ba dugg ci man na la nga a rabbi la toogee son bi pick up la ko toogee kon waru la bette bu jeexee mu am rappeur yu bëri yu la tàggee leer ma yaa ngi doon bu may bind son bi ngay xàndoor boo tey di nga sedd ni ngelaw ndax gis nga ko indaale tàngoor maam la booy duma sa morom kon nga la doom foo gis dama xajal rek ma romb man ñoom dina saf te du xorom na ma visé gonom maa ak màgg pour toj lu bonom bul ma jëm a ko bonom ñu ñaar duñu noono ndax da gis rek daw ni pono sa bopp ngay yokkati coono dafay mel ni noono doo xew ni ñu la jiitu noono spaceships. this motherfucking boy. She motherfucking boy. Yeah. I wanna live in the world. Light up, girl. Tell me my name. Tell her you can't. Vibe Radio. Coming up together as one. Hello. Ladies and gentlemen. Vibe. Vibe Radio. 102.3. Vibe Radio. Le nouveau son.

Euh, On mën jël sa voix ou parce que voilà tempo je pense que les son la bo xamné pour exactement c'est obligé de jël tempo xaw ralentir Je rap ça sera pas ben rap papa papa xam carrément c'est un tout petit peu ça loolu démé donc voilà quoi leeragul dafa que nous ñu bien monde suñu suñu suñu copain copain euh, Abbas Compton Compton moo doon leeral leerlu loolu. <laughs> avance avance nan teel a <laughs> avance bàyyi li ngay def nag ah. mooy affaire yooyu dafa sori torop nag waaw moom de xam nga mel ni am ay mbokk fële te ngéej <laughs> noonu la demee. ayca pare nga. ye ye ye ñu liggéey yox ye waaw. waa kii lii lii la ay wala ay. lii ay pongo la. ay bongo ay bongo la yow. <laughs> mais mais léegi lii noo leen ko composé ci studio bi. Euh, bon déjà bi dama ko composé ak sama benn beatmaker Karabalik beat moo composé quasiment mun naa ne deux quarts si si si projet bi. Mhm. donc euh, bañ koy composé dañ ceene woon mu commencé affaire bi mu ko commencé bon déjà moom dafa doon ne ah li moo loolu man non fii lii affaire bi nice na de. Non non ñu dem ci dem ci xam non li ay bagage donc ensemble ñu ci boole ay bagage bagage ma taxi. amul bongo sax bon par la suite ba tégué ba pareil ñu ma jël premier mix dem ba Diego ñu déglu affaire yi xam waxtaan ci affaire Diego na ma pourtant xam nga euh, genre li xam nga genre bongo genre parce que par rapport ak tamay affaire di rek. <laughs> ñu ci donc xam tant de ko affaire yi mu mel lu jàllu quoi c'est un peu ça. waa ñu xool. yeah ayca. ànd ak jéego ma yéego. what's up. jéego ma yéego. ayca indiwaat ko indiwaat ko indiwaat ko. yeah. jéego ma yéego. yeah yeah yeah. ayca waxal. waaw. waaw. yeah. good boy. ayca. Vibe Radio. oh. it's your boy Young aka Yigo benn Yigo égal dix door da nga fàtte dem wala tey ko wala da nga ma nëbboon sa jikko musuma xam ñaata la ñu woon waaye yàggoon naa xam ñuy toog ba mu tare rek doxu gaw ma woon taf tey tawe ku suba ni si ngam alhamdulilah ba am nañu ko gëm jàpp ni dina ma sa fay waaw duma fàtte Yigo yu tay wul ci man boobu ba tay ba may sentu ak ñeneen ñu dul ñi ma nekkal di nga xaar fi ba dee dafa mel ni ngay xaar magi du mandi kat bi di bàyyi bu tey dama mës a gis ak yéen ka damay is de crise su may gis critico damay gis di apprécier mel ni dam la fay te dama gën a ginnaaw dama war di critico mën nga bëri àndandoo mais booy xaaritoo ma gën a fi amigo wax na koy àndal bro ma wax la aussitôt ndax doon gër te ko taani go yu ko du you no yu ko ma xëy rek digo. porque pues ahora se fue digo. la Is het? Eh, je gaat niet dubbelen. Dubbelen wij? Is het? Waar dubbelen? Is het? Je gaat niet dubbelen. Eitje. Kam la kan, kam na fam ya agling man joko won. Batri ze do we def sax minute. You go do mandi pour monter fit. Xel bu sel bi rek mo di nit. Lu moy do yek sa kam mala team. Les vrais you go no parle pas trop. Do len de sen yo nu mu nekul.

Hey, we're g o e n a ride out o e a d d e s o n Where you go? hey, where w i e l I do you go? Where will I do you go? h o u go, my e h o c o l a t e I don't know. It's not there. l i s h e n Don't take it. Hey, take it all the time. You go, y o e take it. You go, y o e take it. You go, y o e take it. You go, y o e take it. l i s h e n Hey, you go. sama ego. Shake gay. <laughs> What a work. Ego, my ego, ego, my ego, my ego, my ego. Who's on my ego? Rap the music, what a fuck. Yes, sir. Hey. Eh. Ego, my ego. What a fuck, what a fuck, what a fuck. Press, boss. Ego, my ego. Hey, ego, ego. Uso, uso my ego. Ego, my ego. Momo, what a fuck. Hey, ego, what a fuck. Uso my ego. Ego, my ego. Ego, my ego. Hey, Gulmola, do you go? Llegó muy coreana, ahora se me llegó. Entonces, pulmón la llegó. Hugo Luzanne, no, Hugo Begereke. Kom Duggelum. Duggelum? Hey, Hugo niet Duggelum. Duggelum? Wauw Duggelum. Vibe Radio. Hugo niet Duggelum. Duggelum, Duggelum. Hey, Duggelum. Duggelum, kon Duggelum. Kon Duggelum, Duggelum, Duggelum. Degedegul. Degedegul. Little degedegul. La degedegul is top hoor. Ai meulen. Maar gaan we het die Amsterdam. Mm dacht hij Senegal doen. Ah, karma. Ik ook maar like dag eh, song internationaal bi. Mhm. Li monyu muna job. Ah, degedegul lol. Sunyu yigo kwa sunyu yigo. Eh. <laughs> Yigo. Wala bok. Je ensemble was er gewoon op nu in contact ensemble kom voor zag laat hij zeg zeg Pauline je moet gebok Pauline nou <laughs> bok nou eh, mhm. je bok te barrière wat een bok wat een jullie uit je bok ik stond weer voor grauw yeah ben je er jou zo'n boy let it uit yeah C'est poil, c'est poil. Tu parlais, tu parlais. Et tu vas rester mon poil. Vibe Radio. Vibe. Le nouveau show. Un poil, et poil, et. Eh. Poil, Poil, poil, poil, eh, eh. poil. Parle, parle, parle. Ah, parle. Parle, parle, parle, parle. parle. Parle. Moi pas bien, moi pas bien, Hugo. Dans mon corps, bordel, y'a de la peine, Hugo. Où étais-tu tout ce temps a que maintenant que je te vois. Moi pas besoin de toi, je me vrai, Hugo. Toujours dans les bouches compliquées dans l'eau, Hugo. C'est le gars What about? tomb bi dafa graw émotion bi énergie bu muy dégager. vibe radio. soo ma loolu yow. est-ce euh, Akil. aje ñu ñëwaat. dañuy ñëwaat tàngal ko Hugo wi soo bi boo yi ma ko laaj ñoom bëri foog ma joxaat leen ko. <laughs> pale <laughs> eh, bi foog ma joxaat ko booy. ayca ayca foog defaat ko booy. Eh. c'est que c'est que son bi son bu muy dégager moo baax. ayca mba. ayca. Tu suis Ça Sarah, I'm mon gars. Yeah, yeah, yeah, yeah, parler. Tu vas parler, parler. Mais je regarde pas en parler. Tu vas rester parler. Hey, eh, parler. Tu vas parler, parler. Mais je regarde palais Tu vas rester palais. Yeah. Oh, moi pas bien, moi pas bien, Hugo. Dans mon corps, bordel, y a de la peine, Hugo. Où étais-tu tous dans Y'a comme maintenant que je te vois. Moi pas besoin de toi, je me vrai, Hugo. Toujours dans les bouches comme Kiki dans l'eau, Hugo. Fais gaffe, je suis dur, vais t'arracher les chicots. J'enverrai pas tout ton livre, après ça c'est fini. Y'a plus les misérables, Victor Hugo. Mmh. babada tu bavardage, du bavardage. Non, c'est pas moi, même qui dis ça, mais l'adage. Frère, si l'Africain n'avance pas trop, c'est parce qu'il met tellement de temps avant que lui ne tourne la page. Les langues sont plus pendues que les cordages. Tu peux t'étrangler avec comme un connard. C'est ici t'as fait mes là-bas qu'on parle. Wallah, les langues sont plus que qu'une chorale. Oh, ah, je vais mal la kawa. Akana fonne en kawa raro kudu ando kawo real nigga tell behind my eggless i see a lot of things that i never told i don't get secret my life is a secret them best nigga will never know les gens sont pire que peinture ah oh quand il fait beau a encore plus que ta peau mais dès qu'il pleut c'est le tago il s'efface vite comme trace de ton rappeur nyata la la la la World you be my nigga my tool on Wardo fan Balle, balle balle, balle balle Tu vas parler balle Balle mon balle, balle Mais je regarde pas balle Balle balle, balle balle Tu vas rester balle Balle, balle Balle Tu vas parler Regarde regardes pas parler. Tu vas rester parler. <laughs> Vous parlez, parlez, mais est-ce que c'est parler qui remplit vos poignets Esclave et condamné de la vie des autres, mon nom est au poignet. Tout ce que tu vois, tu le dis, nulle personne n'est épargnée. y en a qui sont pires que des pis, si parler c'est sport, ils vont gagner. Ma maman a toujours dit fils fais gaffe, raconte rien de ta vie au premier venu. On n'achète pas un livre, En la couverture, raconte déjà tes douze En contenu. Tu vas tomber, tu vas toucher, tu souffres, mes fils rend, relève-toi et continue. Courage, bravoure, humilité, Et t'es les qualités de ton homonyme. Y'a que devant que je regarde, jamais ma tête se retourne, car je mes vrais ego qui protège mes arrières. Fais ce que t'as à faire, car les autres parleront quoi que tu fasses, c'est l'homme qui a peur, sinon y a rien. C'est aujourd'hui que Hugo fait son lendemain. Verrez Igo évite de tendre main, Que Dieu me préserve des pervers qui prennent le père de veste pour plaire. Amen. Igo dit kana, Igo kenyana, nyatan mankale. nido ti jelini do battre un ankan kalle, Pour mane anga kusafu angi parle. Eh, Eh. Réserve parler, parler. Parle-moi, parle. Tu vas parler, parler. Parle-moi, parle. mon parle parle moi parle. Mais je regarde pas parler. Parle-moi, parle. Parle-moi, eh, Hey, tu vas rester parler. What's up, what's up, what's up, what's up, parler. Parle-moi, parle. mon bah, parler, parle moi tu vas parler, parler. D'ailleurs, wax rek la ñu def wax rek lañu def. tu as un volet. Vous êtes sur Vibe Radio et il est 21h.